waaw salaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax di leen bal di rafet lu ànd beeg yéen dañ leen di présenté rek ñaari sangat yu baax a baax lool incha allah danañ koy faral di defar di ko joxe te njëg yi itam nekkul lu diis lool danañ ko def di ci dimbale ak di ci jàppale jaamu yàlla yi bii sangat na boo xam ne képp koo xam ne da nga soxla ubbeeku ci sa wàllu liggéey wala nga soxla bayree wala jigéen nga boo xam ne danga nga yéex a sëy bëgg yàlla may la borom kër incha allah te bëgg wala nga bëgg bàyyi la ci sa wàllu liggéey wala wërsëg yokk mën nga jokkoo ak allah gàllaaj la bu baax baax sangat daal boo xam ne baax yi foo ko app passé na foofu incha allah képp koo xam ne yittewu nga ko rek mën nga jokkoo ak ñun ci numéro whatsapp bi incha allah danañ fexe ba nga yónnee jot ko ak foo mën a nekk ci àdduna bi am na ñu ñuy jëflanteel ñoo xam ne mën nañ la ko indil foofu bu soobee yàlla te njëg gi itam taxu ko diis lool ñoo koy def di ci jàppale ak euh, jaamu yàlla yi ak ñi nga xam ne ñooy séq ak ñu incha allah bu dee bii nag dafa bari ci nit ñoo xam ne seen gàllankoor ñaar la benn mu nekk cat benn mu nekk euh, liggéey léeg mu nekk rab wala mu nekk seytaane wala mu nekk ay feebar yoo xam ne yooyu ñoo la koy tekk euh, saafara boo xam ne ci alxuraan lañ ko liggéey waaye mu ànd ak lenn ci sunu euh, reen yi mu nekk loo xam ne dana dindi cat ci diir bu gàtt dana di itam dindi rab ak seytaane ak lépp loo xam ne gàllankoor la ci yow wala liggéey la lu la def incha allah boo ko jëfandikoo yàlla mën na la ko dindi ci nu mu gën a gaawee bu ko defee ñaari bouteille yi tamit bu la neexee mën nga ko jëndandoo bii dana la raxasal sa yaram lépp lu fa nekk ci lu lay gàllankoor dina dañ bii dana la ubbi incha allah ñu ngi leen di ñaan képp koo xam ne soxla ko rek mën nga jokkoo ñun ci numéro yi te njëg yi diisul diisaay googu wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aoudu billahi min asheytaan irrajim bismillahi arrahmaani rahim mbokk yi wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel di bu baax di rafetlu ànd bi ngeen ànd ak seen chaîne bii di alquranul karim zikru wa shifa chaîne bi di leen baaxe njëriñ yi nekk ci alxuraan waaye di leen firil seen ay gént tey ñëw ak yéen ci firi gént ci bunt bu am solo mu dellu ci gént gis ay sax wala waaw ay sax daan nga gént gis laaj bi bari na ci lool lool lool lool xam naa li ko nit ñi di gént bari na lool balaa ñu ci ñëw ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné te partagé euh, beneen bi ku ci am gént mën nga ko envoyé ci numéro whatsapp bi ngeen jàkkaar loolu tam ngeen bañ a woote mënuma wuyu woote yépp bàyyi leen ko ci vocal bi incha allah ni liggéey bi di doxee mooy bu vocal dañu am ci journée bi heure boo xam ne ci dañuy toog déglu vocal yépp tontu seen borom euh, bu fekkee dafa am laaj boo xam ne dafa bari ñu ci laaj dañ koy boolente ñu def ko benn thème def ko ci vidéo pour ñëpp jotandoo bu dee nag euh, bariwul kenn ku nekk daan la tontu ci sa euh, whatsapp bopp incha allah. ku ci envoyé vocal déglu rek lu mu yàgg-yàgg dinañ la tontu incha allah vocal yi mooy bari trop trop su fekkee danga toog nag ab diir tontuwun la mën nga wàcc wàccewaat vocal bi ndax léeg-léeg ñu tëb la tey ñëw ak yéen ci bunt bu am solo mu dellu ci gént gis sax gént gis sax damay njëkkee ci góor bu nekk ci néegu sëy ñëw ci góoru célibataire ñëw ci jigéen bu amagul borom kër ñëw ci góor bu am borom kër li may njëkkee mooy góor boo xam ne am nga soxna nga gént gis ay sax li nga jëpp jàpp mooy bu fekkee sax yi dafa nekk sax yu weex baaxul li muy firi mooy naafeq benn mu nekk ci yow wala mu nekk ci sa entourage walla nga nekk nit koo xam ne da nga bari looy ngistal wala mu nekk ci sa entourage baaxul ñii ci mu fasilun dañu wax ne yow la yaa nekk naafeq wala iyaazu billah wala nga nekk nit ñu gisal ñenn ñi ne sa entourage moo bari ñoo xam ne dañuy jëfandikoo loolu maanaam dañu naafeq lu ñu bari ñu lu ñuy gisal ñenn ñi déedéet musiba kabira dañu wax ni musiba bu rëy boo xam dana tàbbi ci yow mi nga xam ne yaa ko gént kon daal baaxul gént gis ay sax yu weex baaxul gént gis ay sax yu weex ci sa kaw lal bi ngay tëdd am na ku ko laajoon euh, baaxul mukk li muy firi benn danañ sàcc sa alal wala boog danañ la ger wal iyaazu billah baaxul gént gis sax bu ñuul sax bu weex laa waxoon bu dee bu ñuul ci góor maa ngi ci góor bu am soxna nii li muy firi moom it danay firi e, nit ku naafiq koo xam ne jege na la lool rawatina ci sa wàllu entourage bi la jege am na ci naafiq rawatina bokk ci say xarit laa bëgg a wax wala ñi la wër maanaam sax yu ñuul wala sax bu ñuul baaxul ci góor bu fekkee danga nga gént gis sax bu xonq ci góor li muy firi mooy ay jafe-jafe ci sa wàllu famille mashakil fil usra jafe-jafe ci sa wàllu famille sa njaboot wala say soxna la baaxul bu dee sax yu vert la nag kooku baax na lool nga gis ay gént gis ay sax yu bari yu vert vert ci góor gu am soxna rizqun waasia li muy firi mooy wërsëg wu yaato yaato yaatu kon nga jàpp sax bu weex ci góor baaxul bu ñuul baaxul bu xonq baaxul bi baax mooy ay sax yu vert ci góor góor bu fekkee dafa am soxna mu gént gis sax di génn ci yaramam laaj bu bari lu ko ni ñaan la waaye maa ngi ci góor laa njëkk bu fekkee fi muy génnee ci sa biir la mahmoud bidaaya xayaat jadida maanaam dundin gu bees lay goo xam ne moo gën ñi nga doon dundee maanaam góor gu gént gi sax génn ci biiram góor gu am soxna baax na lool góor gu gént ay sax di daw ci kaw yaramam dañuy dox ci yaramam wala ci yëreem baax na lool xayrun wa rizqun wa maal dina firi xéewal ak wërsëg ak xaalis boo xam ne danga nga jot incha allah rizq ak maal dafa am différence nit ñi boo ne rizq dañu jàpp xaalis kese la maanaam wërsëg wërsëg mën naa yaatu mën na nekk yu bare bari tax di den nag maal maanaam xaalis daf cee bokk ci li muy firi léeg-léeg gént ay sax yu bari wër la wër sa yaram ba fees dell ba dara feeñatul ci sa yow ci yow baax na lool zuriyatan tayyiba rawat na mu nekk sax yu vert danay firi njaboot ko barkeel lool gént gis ay sax ci sa bopp ci góor gu am soxna baaxul humum wa ahzan maanaam ay njàqareek yi xat-xat ak jaaxle la baaxul gént sax di génn ci sa demukaayu duus ci góor maanaam ci sa suuf nga gént góor euh, sax di fa génn baax na lool wallaahi ci gént yi gën a baax la bokk li muy firi kasratul awlaad az-zukur maanaam yàlla dana la may njaboot gu góor gu bari dana ci am ci ñoom nag jigéen boo xam ne dina nekk turam di àgg fu kawe kawe ku ñu tudd maanaam gént gu baax a baax a baax a baax la kon loolu moo dellu ci góor yii may wax nag ñëpp a ko bokk maanaam gént gis sax di génn ci sa yaram dafa bari lu ci nit ñi laaj fii may wax ñëpp a ko bokk góor jigéen célibataire bu góor célibataire bu jigéen jigéen bu sëy ba tas jigéen bu euh, sëy ba borom kënam génn àdduna ñëpp a ko bokk bu fekkee danga nga gént ay sax di génn ci sa yaram bu fekkee dafay génn ci sa loxo ci sa loxo fii walla fii lan lay firi mooy danga am xaalis bu gaaw bu ñëw ci sa loxo waaye dafay nekk alal ju xaram boo xam ne amin bi du dagan baaxul bu fekkee ci sa loxo la génnee moo xam ci sa tenq moo xam ci sa conc bu fekkee dafa génnee nag ci sa gémmiñ fa nga gént sax yi dafa génne moom it dana firi alal ju gaaw joo xam ne benn mu nekk alalu sàcc wala mu nekk alal joo am yow ñu sàcc ko baaxul bu fekkee da nga gént nag ay sax di génn ci sa làmmiñ maanaam gémmiñ ak làmmiñ bokkul maanaam làmmiñ daa nekk si gémmiñ nga gént sa làmmiñ di génne di génne ay sax wala ab sax baaxul gént bi bokk na ci gën a bon ci doomu aadama benn mooy da nga wax mbóosóor maanaam danga nga wax musiba wala nga wax wax ju sew wa illaa da nga seede maanaam da nga fekkee lu xeebu lu doyadi maanaam baaxul daal ci gàttal te bàkkaar bu rëy xaj na ci baaxul loolu moo dellu moom laa wax ne ci lii moom ñëpp ko bokk ma ñëw na kon léegi ci jigéen boo xam dafa nekk ci néegu sëy mu gént gis ay sax euh, li ëpp ci jigéen bu nekk ci néegu sëy gént gis ay sax danga leen gis nii rek li muy feriñ mooy ay nit yoo xam dañ laa jege lool waaye dañ laa iñaane baaxul sax bu ñuul ci jigéen bu nekk ci néegu sëy problème ci sa wàllu sëy mashakil zawjiya maanaam da nga am problème ci sa sëy bu fekkee jigéen boo xam dafa nekk ci néegu sëy mu gént nag sax di génn ci bëtam li tax mu mu ko sax génn ci yaram kii dafa concerné jigéen bu nekk ci néegu sëy rek waxoon naa ne bu fekkee da nga gént gis ay sax yu bari ay nit ñu la jege waaye dañ iñaanee la waaye bu fekkee da nga gént ñuy génn ci sa gémmiñ ci sa bët bët baax na lool maanaam bu fekkee ñu la doon iñaanee la wala ñu lay fexeel wala lu mu mën a doon wala ay liggéey wala cat yu wel noonu yàppal ne yàlla dina la dimbale mu dañ ci sa yaram ba set wecc incha allah baax na lool gént ay sax ñuy dañ ci sa bopp ñuy génne ci sa bopp ci jigéen bu nekk ci néegu sëy waxoon naa ne bu dee góor la bu nekk bu am soxna baaxul waaye bu dee jigéen bu nekk ci néegu say baax na lool xaalis bu bari boo xam ne danga ko jot balaa yàgg incha allah bu fekkee jigéen bu nekk ci néegu say dafa gént ay sax yu bari mu gis leen ci biir këram këram fees dell ak i sax baaxul machakil fil bayti maanaam dana am ay problème ci sa biir kër rawat na ci sa wàllu sëy gént gis sax génn ci sa ci sa sëyukaay maanaam ci sa pëy ci sa awra ci jigéen bu nekk ci néegu sëy laaj la bu fi ñëw ay yoon bi ñu firi ëmb lay firi jigéen buy sëy gént sax bu génn ci sa euh, awra li muy firi mooy ëmb gént gu baax la ma ñëw ci jigéen ju ëmb jigéen boo xam dafa nekk jigéenu wérul gént gis sax bu fekkee dafa gént sax yu weex mawludu unsan yàlla dana ko may doom bu góor bu fekkee bu ñuul yàlla dana ko wala bu vert yàlla dana ko may doom bu góor te ñeele ñëpp baaxul woon ci ñoom sax bu ñuul wala bu weex bu dee yéen a ngi de waaye bu dee ci jigéenu ëmb moom bu baax waaye jigéen ju ëmb baax na ci moom bu dee bu weex la yàlla dana ko may doom bu jigéen bu dee bu ñuul wala bu vert yàlla dina ko may doom bu góor incha allah jigéen ju ëmb mu gént sax di génn ci biiram dalil ala qurbil wilaad na xam ne muccam maanaam am doom jege ci na jege si na ci incha allah ma ñëw ci jànq maanaam célibataire bu amagul borom kër ci jigéen mu gént gis ay sax bu fekkee dafa gént gis sax yu weex li muy firi sëy lay firi ci moom waxoon naa bu dee góor baaxul bu dee ñuul nag baaxul masaakil ay problème la gént gis ay sax yu bari yu tasaaroo ci seen kër ci célibataire bu jigéen maanaam jànq baaxul dana am góor gu ñaaw jikko góor gu day waar koo xam ne dana ko ñëw di ko labar si bëgg ko soxna loolu lay firi wala yaasu billah bu fekkee dafa gént sax bu verte li muy firi mooy yàlla dana ko may góor gu baax bu ñëw ñaanti ko soxna incha allah bu ñuul waxoon naa ko euh, euh, bu weex baax baax na bu ñuul baax na euh, baaxul sax yu bari ci seen kër baaxul bu verte baax na kooku sëy ci góor gu baax lay firi célibataire ci jànq maanaam ci jigéen gént ay sax di génn ci yaramam ci célibataire ak fu mu mën a génn ci moom zawalul humum wal mashakil bépp jafe-jafe wala jaax jaaxle xat-xat yu mu nekkoon yàlla dana ko jeexal incha allah balaa yàgg waaye bu fekkee ne dafay génn ci gémmiñam kooku moom baaxul li mu firi dana bari ay nit yu koy jëw wala rambaaj boo xam ne dana ko jege lool baaxul bu fekkee dafa gént muy génn ci biiram nag ci biiram nga gis sa biir nga gént bu dee ñee waxoon naa ne baax na mais bu dee kii moom baaxul ay problème famille lay doon baaxul bu fekkee dafa génn ci sa bopp nga gént ay sax yu bari dañ ci bopp ci jànq kooku moom xéewal yu bare bare bare bare bare yoo xam ne mi ngi ci yoon di ñëw te jëng ci jot incha allah lii moo dellu ci gént ay sax ku ci am laaj bu mën ko envoyé ci numéro bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.